boo ko ko delloo rek mu dëq sa ndigg dafa lay écraser sax doo nekk foofu foofa nii amu fa man la mukk yow la rek yow yàlla yow la yow yàlla yow la yaa fi ne kenn newu fi yow ana nga ma ne maa ngi ci sa biir yow yow yaay yàlla jeex na loolu nag dund na ko moom sëriñ Cheikh ba ñépp seddal ko xàmmewul soxna xàmmewul doom xàmmewul kenn ku jubóog yàlla la xam ku nangoo dem ci yàlla la xam yooyu nag mën na ci nettali lu bari loo xam ne soxnaam sii fi des yal na yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi ba ca kanam kanam soxna su baax la waaw soxna Ayda Dem bii fi des sage-femme d'État la ba bi Serigne Cheikh di génn àddina moo koy toggal elle a quatre-vingt-dix ans maam la ci man dem leen ngeen laaj ko soxna sa Safiyatu dem maam la ci man loolu ñëpp xam nañ ko sookoon maa ko daan jë fayee ko location four moderne bi moo njëkk a am four moderne Sokone soxnaam ba léegi fuur baa nga fa maa daan fayee ko location bi jëndal ko ci cuuraayu santang yóbbul ko ko Tiwaawan mu yaayi Serigne Mustapha bi responsable moral mustarshidina wal mustarshida su ma fay wan woon bi ba pare mu ne ma jëndal ma ci këll ak cuuraayu santan indil ma ko kon man li may wax xam naa ko waaw ku muñ sa dëju soxna muñ sa dëju doom waaye dëj boo demati borom war naa mën a muñ moo tax ñi daan wax naan Serigne Cheikh du jaale ji kenn <laughs> bi aada yi bare ci dëj yi la toog ni na Cheikhouna Tidiane daf daan dem ci dëj yi daan dem ci ngénte yi waaye bi mu toogee nag nee na dafa yëg ne aada rax na ci mu toog Serigne Cheikh it yëg ne aada rax na ci dëj yëg ci ceet yi mu toog di yeble demul dëju kenn demul ngénte kenn loolu moom dong nga ko réussir Sénégal fii ku fi demul dëj gaa yëpp bala te di ko tey ku fi bàyyi ma laaj Abdou Aziz bu dul dara jàngal na ko est-ce bi mu génnee àddina Serigne Cheikh dem na demut bàyyam alaaji Habib demut ku defal loolu say bàyyi waaye boo diju boo demul diju bàyyi jàmbur kooka war naa muñ moo lay won ne nim jàppee boppam la jàppee ñëpp niveau bi mu yëg ci yàlla la laa na ayuhum aqrabu lakum nafan foofa la toll faridatan min allahi day doon farata ci yow dootoo xàmmee doomu jàmbur ak sa doom laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum nafan faridatan min allah yàlla ne doom bi nga jur ak bi nga jurul boo yegg fee sii ci man dootoo leen xàmmee soo leen xàmmee ma rëq seen digg ñu ne ko lu tax mu ne farata la ci man yàlla nga bañ leen a xàmmee ndax xamoo ko la ciy jëriñ ay yàlla ne xamoo ko la ciy jëriñ laa tadruuna xamoo ayyuhum kan ci ñoom akarabu moo gën a jege nafan ci njëriñ ci yow xamoo ko xamoo ko loolu nag plafond boobu it yeggoon na fa ñett ñum jamononteel laa gis ñu yegg fa moom Cheikhul Hadj Abdoul Aziz ak Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar ñoom yegg nañ ci niveau boobu xoolal arajab bi bu ñu la nee moo yar Serigne Cheikh rek nga gëm ko doxalinu Serigne Cheikh mooy doxalinu Serigne Abdou Alaaji Abdou ba bu leen woy xam ngeen ba woy na ko xàmmeewul setub yonent bi ak setub Cheikh ak setub dem ba gun moom ku jub la jub la xam Serigne Cheikh ci wàllu bëgguma koy nettali waaye boo gisee ma di ko nettali bi ma ko nettalee ak léegi mat na ñaar fukk 89 ak léegi ñaata at la pour bañ a kàcc mën ngeen tontu. 89 événement Mauritanie. ci 30 ak Sénégal. 30 ans 30 ans. li may nettali 89 la mu ma fekk ndar ndax 88 laa dem ndar ci ndigalu Mawlaaye Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz doon fa def sama tarbiya ci wàllu course. 88 89 90 ñetti at yooyu génnuma ndar benn yoon laa génn ndar na tiijaan yi moo ma yónni woon ci Mawlaaya Cheikh El Hadj Abdoul Aziz loolu tax ma di ko nettali ma fekk ko jak saaw keroog fa laa fekk Ibrahima Fall moo nekkoon ministre affaires étrangères bu Abdou Diouf Ibrahima Fall bii doon def élection te am njañ keroog moo ma indiwaale ci otoom ba Tiwaawoon gaaru Tiwaawoon ma jëlaat oto dem ñibbi Ndar keroog ñu ngi fa añee mbaxalu Saalum góor gee dank jox ma bi mu raxasoo it balaa muy raxasu dafa ne ab du Dieye sottil ma ab du Dieye yéen ñépp gis ngeen ko ci conférence maam as bi Abdou Dieye sottil Abdou Dieye sotti ci loxo bi ak loxo yu nooy mu di ko moom la ñuy wax tabasu tabasu waaw di ko boxam di ko boxam di ko boxam ba loxo yi fuuru mu mar ko mar ko mar ko ba mu set daanaka jarul sax muy raxasu mu ne Abdou Dieye xoolal ma ndax wenn fepp desu ci ab du ne ko dara desu ci mu ne bu ci desee yàgg yàlla daldi ni defal ma ndox mi mu defal ko mu door a raxasu keroog laa dégg mu ne képp ku raxasu wiccax ko balaa ngaa dee di nga dof mu ne boo raxasoo ba noppi da ngay yor sa loxo ba ndox mi nga jël morso fomp wala nga def xadamaahu min diiluhu xadamaahu min diilu taaha xadamaahu nee na yonent bi day léeg-léeg bu amuloon morso bu mu fompo ay yeelam moo doon torson ci yeel yi la koy fomp bu raxasoo ba noppi moom rasulullah te xam nga secret bu ci nekk loo fomp ci sa yeel mu rees ñam du tag ci sa biir donte dañ la ci liggéey du tag keroog laa dégg foofu ci jag sa am wax loolu ci laa ko nettali nag lii may wax lii may wax nettali naa ko imam Moussa Guèye booba nettali naa ko Hadj Malick Cissé Jinge nettali naa ko rahmatullah alayhi wa radiya anhu Abdou Aziz Seck bi ngeen xamoon ca at yooya boobu jubluuma ci wanewu jubluuma ci wane sama bopp dama ci jublu ci ki may waxtaanee ñu xam mooy kan boobu li ma doon si kër dama jékki-jékki am ku fëgg po fenêtre bi boobu maa ngi Balakos quartier bu ñuy wax Balakos boobu foofu la luye woon benn néeg mu am lu fëgg po bi ma ne <clears throat> mu ne ma dolli ci bismillahi rahmaani rahim hésité wu ma ma dolli ko ci ba bi fajar di waaj a boobu gannaaw gee laa daan toog ba fajar ma door a jóg dem jàkka après minuit daal moom dina fekk ma loolu wóor na ma balaa maa jóg 4 heures 30 wala 4 heures minimum du matin ma dem jàkka ja bi 4 heures di waaj jot ma gis jëmm ju taxaw ci sama kanam bi mu taxawee mu mel ni nag dañ ubbi benn saal ngandum saal boo xam ne bi ma xoolee xaw ma fu mu yem yépp fauteuil yu xonq la comme assemblée national comme fi président assemblée nationale di toog benn fauteuil dong nga fa nekk bu xonq bu kawe ñu ubbi bunt bi comme ni ñu ubbee bunti jigéen ñi ma gis benn jëmm ju toog ñu ne ma huwa Cheikh na Tidiane nii la ma def tàllal loxoom ne ma nii ma jóg di ñëw di ñëw ba jub ko mu ne ma taxawal ma taxaw mu ne ubbi leen bunt bu ndaw bii ñu ubbi bunt bu ndaw bi mu ne ma may ma yow sama sët nga waaye kii may recevoir daf maa ñor sama turandoo la ma ne ko kan mu ne ma Cheikh na tiijaan yi si comme bunt bi président assemblée nationale di jaar foofu la jaar ñëw sukk ci kanamam mu sëgg moom Seydina Cheikh am lu mu koy wax xaw ma lu mu ko wax nag bi mu siggee sëñ Cheikh jaaraat ci bunt ba dem mu ne ma nii ma ñëw mu ne ma demal ci Abdul asiis nga ne ko nangam ak nangam ak nangam ma ne ko ban Abdul Aziz mu ne ma da baaxoon Malick ma duggoota dem jaksam saw ko bóor gi mu ne Ibrahima Fall fekk am ku ko ne papa Ibrahima Fall yàgg na fi de mu ne ko Ibrahima Fall bul defati lii yow kilifa nga soo ñëwatee yëg lool waaye bu laqatu ci gannaaw recevoir ko wax ak moom ba noppi ne ko booy dem yóbbaaleel ma shérif ba Tiwaawan keroog moo ma indi ba Tiwaawan ma jël oto di ñëw ndar bi Serigne Cheikh jaaree noonu génn Seydina Cheikh ne ma jaaral fii nga dem bi may génn mu mel ni dafa am escalier boo xam ne boo tegee sa tànk rek daf lay yéegal ma fekk Serigne Cheikh ci kaw. mu ngi tiim benn suuf su weex tal boo xam ne wóor na ma ne moom du suufu àddina mu ne ko sëriñ bi lii lan la mu ne ma fii laay defee sama tasarrufaat yépp lu ma bëgg ci yàlla fii laa koy defee mu ne ma moo tax alal yomb ma lii nettali naa ko imaam Moussa nettali naa ko Xaaji Maalik li ma lay wax ni 89 la te du gënt yàqazatan du gën ci ay nelaw de déedéet yàqazatan laa manaama comme nii ñu toogee di waxtaan kon man li may xam naa ko te lii nettali naa ko imaam Moussa Guèye nettali naa ko Xaaji Malick Cissé Jinge nettali naa ko Abdou Aziz Seck rahmatullah alayhi wa ak ñeen nag ci mbokk yi am na ñu ma ko nettali ndax bañ bu ma lii laa doon bañ su ma ko toogoon ba tey ma wax ko danañ ne day duufale la Serigne Cheikh rek waaye ba ma koy wax boobu mu ngi fi demagul trent ans maa ngi koy door a nettali en public te lim a tax waaye moom dugg na ci noppam ndax wax naa ko ko mu dégg ko kon bu dee ci wilaya rek fa mu fa yeggoon ci plafond ak some bariwul ko fay yegg ci wàllu yàlla te mënoo ko xam ci moom boo demee ba fam fam dëkkoon dégg ngeen démb ci waxtaan bi mu doon def nee na président Wade daf ma fekk ni ma génnal ci sa yii lii lii da rey sa bopp fi parce que fi mu ne amul lumière ku la ko wax doo ko gëm fam dëkk amul làmp tors lay niitee tors amul mat la pajaasa fa ne lekkam li ci ëppoon crédité la ak gerte caaf lépp ci lekkam crédité ak gerte caaf café ataaya jeex na crédité gerte caaf café ataaya jeex na moo ëpp ci lekkam dem leen ngeen laaj ko maam Ayda dem moo ma nettali mu ne moom dama fi am benn gan bés sama am Cheikh di ko recevoir nee na ma togg añ bi ba pare ne ko kaay leen añ nee na mu ne ma man Cheikh Cheikh lay xaar mu ne maa ngi mer ma ne ko baax na demal nga xar Cheikh Tidiane nee na ma génnee añ bi ñu ñaar mu ne mu des ma ne yóbbul leen ko ñi ci biti nee na ndax boobu xam naa li koy xaar nee na ñu ma yóbbu ko añ bi fexe naa daal ba añ desatul ci kër gi te fa la ñeen du ñoom nee na sëriñ bi ubbi ne soxna si waxal Baye Omar mu indil ma añ bi te waale gan yi ndax moo ko ne sëriñ Cheikh la xaar nee ma ñëw mu ne gan ngi ñëw Serigne Cheikh ubbi muy crédité xam ngeen crédité tuuti salaat tuuti concombre tuuti carotte tuuti nawe nawe moom lay fejet boole kook euh, kii bi nuñ koy waxeeti salaat si loolu lay lekk nee na ñu ubbi rek góor gi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Cheikh lii may sa añ ne ko ah lu xew mbaa jàmm mu ne ko man de def naa musiba soxna see ma tegal añ ma ne ko bàyyil ma xaar Cheikh Tidiane mu ne ko lii laay dundee mu ne ko lii laay dundee de mu ne ko moo ne ak a neex nee na ma dof dof lu rek barkeelu ci waaye safut dara mu ne safut neex safut naq nee na ma pare mu ne ma boxamal ci gerte gi am na solo de nee na ma barkeelu ci gerte gi nee mu ne ma ndox mi nag seddul ndox mu tàng la te yaakaar naa yàgg na fi lool nee na xel li ci kaas bi jox ma man naan mu ne nag maa ngi yàkkamti mu yeewi ma nee mu yeewi ma mooy ne bu du doon lam ma jox falaa koy bàyyee ba dina tukki mu ne waaye lam ma jox nag ba ma génnee ne soxna sa soxna Ayda waaw dimbale ma soxna si añ bi desut mu ne ma ne ko bu desoon sax doo fi wan moo gën a tàng ci kaw suuf maam Ayda waaye ku baax la ne ma ne ko bu desoon sax doo fi wan na nii la ko waxee ndax da ngeen foog ne Cheikh Tidiane dafa tëju fii di lekk ginaar ak mis wi xamu leen li xew kii lekkul ganaar lekkul mis wi kii ni muy dundee malaaka yi sax duñ ko dundee loolu la ko ci soxna dem mu ne ko kii ni muy dundee malaaka yi sax duñ ko dundee ndax malaaka yi sax am na luñ bëgg waaye kii bëggul dara waaw nettali ma ci keroog maam ay keroog maam imaam musaa Gueye ñoo ànd nettali ma lu bari ci dundini Serigne Cheikh da ngay yëg ne Serigne Cheikh dafa napp àddina ba jàpp ko ba am ko jox ko ginnaaw boobay li gën a jafe bu dee mbooloo yàlla jox la ko ba mu doy foo ne suba fële laa jëm àddina yépp dagg jiitu la fa am na ñoo xam ne jaral na leen fanaan fa ñetti fan di la xaar boo ñëwee sa benn assalaamu aleykum téeméer xam nañ xam nga loolu dara ji nga ëpp ko ah nga mën a muñ loolu dëkk ci pukkus ruq soo xam ne amul courant amul dara lumière sax du fa takk kooku dëddu na àddina jàpp milliards ay milliards ci loxoom ay milliards ci wàllu liggéey laa lay nettali loolu Baye Omar Samb moo ma ko nettali nee na lim fayeeku woon ci te dégg ngeen ko ma dikke ñaa mooy avocat ba ni mu fiy jógee wax na ko ba tàyyi lim gañe woon procès bi mu gañe woon ci Crimée bi Sococim ñu fay ko ci euh, un mille deux milliards yu manqué tuuti Ibra Gueye mu ngi dund Ibra Ndiaye mu ngi dund dem leen ngeen laaj ko Baye Omar nettali na ma ko sëñ Abdou Alamin nettali na ma ko mu ne boobu Serigne Cheikh nga France ci tukkim bu yàgg bi ba ñépp foogoon nañ ne dootul ñibbisi ne na ab jujuuf téléphoné ko ne ko gañe nga sa projet bi fay nañ la daay daanaka yegg na ñaari milliards kuñ la koy joxal mu ne ko joxal ma ko Ibra Ndiaye mu ne sëñ Abdou Diouf foog ne Ibrahima Ndiaye benn personnalité bu mag la nee na man mu joxe ordre ne leen bu Ibrahima Ndiaye ñëwee ngeen ne ko mu yegg si yóbbante Serigne Cheikh laa yore te moom la moom la ci wóolu nee na ibra Ndiaye mooy arrosé kër Serigne Cheikh fleur yi moom métier mooy arrosé ci la ko Serigne Cheikh daan fay moom arrosé rek mooy métier ma ñëw yére yam doon arrosé moom la demee palais. mu ne Abdou juuf gis ko ne comme non kii Cheikh Tidiane dafa juum yónniwul kii sëñ na mu xëcc téléphone am woo ma ne ma ah yow Cheikh Tidiane daf ma ne dina yónni ku ñuy wax Ibra Ndiaye mais kii fi ñëw moom du doomu de ndax kii lim sol sax kenn xamul lu muy niru nee na mu ne ko ah bu dee Ibra Ndiaye la la wax la moom la tudd mu ne ah mu ne ko toll nii mu ne ko ah mu ne ko moom la de. boo ko ko joxul àddina tukki ci sa ko maa bokk ak moom ndey bàyyi te yebalu ma Ibra Njaay ko dey nee na Abdou Diouf taxul mu mu jël téléphone am téléphoné ne ko mais danga noonu ma joxal la ko mu ne waaw mu ne ko mais ki fi ñëw kii sëriñ bi nga kii du doomu aadama ne ko lu ciy sa yoon nee na mu ne ko mënuma ko ko jox mu ne ko kon nga wan na ko lekk ko bon waaye duma ko laal jox ko Ibrahima Ndiaye nee na ma téléphoné sëñ Abdou ne ko mais risque la kii milliards yi ma di ko ko jox mu nar ko yóbbu noonu nee na ñu ngi ko def ci ay saak mu génn ci biti arrêté taxi arrière taxi bi ci biir ñuy jël saako yi di dugal ci biir mu ne Abdou juuf taxaw di ko xool ne kii danañ ko rey ci àll bi kii danañ ko rey ci àll bi rek Baye Omar nee na xaalis boobu Serigne Cheikh lekk ko ci mille francs nee def ko ne joxal diw nangam liste la ko defarlu diw joxal ma ko temps jiw joxal ma ko temps jiw joxal ma ko temps jiw dexal ma ko temps mu ne ba la ca des mu ne ko jox ko Ibra Njaay ca la Ibra Njaay tabax këram moom nee na ba bés ñuy doxantu ma ne sëriñ bi boo mu mënoon baal rek ñu jàdd gu doxantu yooyu mu daan doxantu guddi Ibrahima Ndiaye na moom ne ko buñ sañoon rek ñu jàdd ma wan la li ma yàlla sarax ci li ma baaxee woon nee na ñu jàdd muy R plus 1 nee na ah mu ne ko fii laa dëkk li ci des dama ko luye nee na Serigne jox ma loxo ne ma jërëjëf nii laa ko bëggee nit dafa bëgg boppam. nit dafa bëgg boppam ku mos may nag sa dund la la may loolu ci wàllu socialam lay dugg nii nag suma benn bunt rek a ci def ci mu jeex ci ci ci tënk rek wàllu socialam rek lim dimbale ci ay nit kenn xamut nu mu toll dinaa ci jël ñeent rek benn bi mooy alaaji Malick Cissé jinge mii comme mu ngi dund ku ko di demal nga laaj xam nga kon li may wax xam naa beneen bi oustaz Mbaye moo ma ko nettali génn na àddina beneen bi ibnul arabi li doomam jii ñuy wax Bachir li moo ma ko nettali ndax Bachir li baayam ibnu arabi li moo doon xaritu sëñ Babacar si moo moo sëñ Masamba Mbakke ñaari xarit la sëñ Babacar amoon beneen bi mooy alaaji fay moo ma ko nettali ci gémmiñam daf ma ko nettali zéro heure huit heures du matin mu gaañu moom alaaji maar bokk naa ci ñi mujj waxal téléphone man alaaji maar fay yal na yàlla dolli leeram pour ci wàll ci wàllu social se se si si jinge mii toog duma wax ñaata million la waaye ba ko ko Serigne Cheikh maye dem leen jinge kër ga mu fa tabax dem leen jinge fa mu dëkk kër ga gam fa tabax ca jamono yooya di nga xam ne sëñ Cheikh mayu ko million yu ndaw dem leen ngeen laaj ko oustaz Mbaye ka moom moo ma nettali nee ma xam nga man damaa baadoolo noonu la ma ko nettali ne dama ko bind leetar mu recevoir ma nee na jox ma enveloppe bu rëy nee na te boobu yoruma dërëm ma génn arrêté taxi nee na toog ci gannaaw taxi bi di wëññi nee na bi ne ma góor gi foo jëm ma ne ko jëlal corniche bi rek nee na may waññi ba corniche bi jeex li may wàññi jeexoon mu ne ma góor gi corniche bi ci fan ma ne ko wàññeeku waatal rek moo ma nettali de Oustaz Mbaye ka yal na yàlla dolli reer nee na may wëññeeku di wëññi di wëññi saksi bi ne ma góor gi dama la fiy wàccee de mu ne ma xam ne bu ma wàccee musiba am ma ne ko jëlaatal corniche bi te nga dem ba bunti pale nga jaar noonu dem géejawaay wala nga dem eh, astafurlah eh, sa eh, liberté 4 nee na ma ma ñëw wëññi ko muy fukki million ci jamono boobu xoolal ci jamono boobu Samba Cissé rab ko Xaaji Malick Cissé dem leen ngeen laaj ko noonu la Serigne Cheikh jëflante ak moom Bachir li moom nee na soxnaam la sëriñ Cheikh woolu mu ñëw mu jox ko lu bari soxna si di ko ko nëbb nee na xaw ma nu mu toll ba tey de nee na ñëw na daal yëkkati lu am solo may ma moom it waxul ma ñaata la ko may nee na ma gis fan yooyu daal ganaar rek lekk bu neex rek nee ma ne ah, baax na kon xaalis bi bari na nee na ñaari weer nee na daal dama xëy rek gis soxna si génnee matlaa yi ci biti génnee pajaas bi génne darab yi génnee lépp ma ne ko waaw soxna si lu xew mu ne ma li ma Serigne Cheikh mayoon warta gaaw a jeexee noonu nee na ma ne ko nu mu toll woon mu ne ma xaw ma de dama ñëw rek tas ko ci biir pajaas bi <laughs> xool nga ci yeewu mag ñi mu ne dama ñëw rek tas ko ci biir pajaas bi su ma xëyee rek làmb génnee man nag xaw ma fu xaalis bi jaar Bachir na ko ganaar yu neex yi ñaari weer yàlla ngay laaj fu mu jaar te xew yépp raatale nga ko nga ngay laaj fu jaar man kay xajaaxaloon na ma kon xam nga sox jigéen ña lam ko may ba tey kenn xamul nu mu toll Bachir li moo ma ko nettali ci gémmiñam beneen bi ci des alaaji maar fay moo ko nettali ci gémmiñam kim ko boolee loon du ko tudd ndax mu ngi dund mu ngi dund te kooku waxuma wàllam waaye xam naa ko ni ma xamee Baye maar fay nee na baay Mar nee na boobu domaine bii la banque bëggoon nangu nee na ma dem ci boroom daara ji wax ko ma man de la sama turandaa daan wax rek mbubb rafet jiba tus mbubb mi rafet na de waaye jiba ji dara newu ci ndax daara jee tax man du ma génn du ma dem fen waaye sama soppe ba wallaay mën na ci dara sama cheikh ba mu ne ko kan mu ne ko sëriñ ci nee na mu yootu kayit bind jox ma ne ma dama jox ko Omar Samb alaaji maar nee na Baye maar nee na ma ñëw jox ko Baye Omar Samb nee na mu ne ma xaaral bu fekkee ne dafa ne nga yegg si ma wax la nga yegg bu fekkee dafa ne bés sàngam ma wax la ko waaye toogal xaar mu ne Baye Omar dem jox ko kayit gi mu ne ko neel maar bu ëllëgee mu ne dama ko jox na mu ne ma taxawal Baye Omar nee na ma taxaw mu jàng ko ba yeggal ne ko neel maar bu ëllëgee 9 mu ñëw fi. Baye Mar Faye nee na 9 fekk na ma ci bunti kër nee maa ngi ko fekk mu toog ci saal bi toog yi ñu ko yaru koo xam ne mel ni gan gi gën a rëy ci àddina lay xaar mu ne te boobu maa ngi jaaxle nee ma ñëw mu ne ma nu mu demee nee ma ne ko banque daf ma lebaloon 30 millions ma di ci liggéey sama entreprise bi waaye rek xam nga da ngay liggéeyal nit du la fay liggéeyal état mu yéex laa fay yooyu nag laa dajale dajale be fi nekk nii banque baa ngi taxaw pour nangu sama kër mu ne ko maar bu lebati banque banque baaxul dañoo toroxal gor banque baaxul dañoo toroxal gor ñu xaaral ma ñëw ñu ne jox dugg ci biir néegam su tuuti soosu génne benn enveloppe jox ma ne ma jënd ci essence ba ëllëg nga ñëwaat ci waxtu wi Baye Mar nee na ma génn dajji enveloppe bi muy 2 millions ma ne i 2 millions essence man de bu naa nelaw tey biddanti ndax xam naa ne sama aajo faju na nee na fekkaat na ma ma taxaw nee na mu ne Baye Mar ne maar mu yegg si na ma yegg si mu yëkkati benn enveloppe jox ma ne ma 30 millions moo ci nekk demal nga fay banque ne na yëkkatiwaat beneen enveloppe jox ma ne ma 30 million moo ci nekk nga suqaliwaat sa entreprise ndax gor ko ko fayali borom may ko lum liggéeyee muy 62 millions 62 millions ci koo xam ne juru ko du doomam du taalibeem ndax taalibe borom daara waaye yëg na ne ci moom la bokk bàyyi maar moo ma ko nettali ci gémmiñam mu ne ma nii bu ma ko defalee nii la ko defalee diw sàngam maa ngi moom bokkoon problème mu ne ma kooku Serigne Cheikh dafa yónnee ci moom ne leen wax leen ko bu mu ñëw waaye yëg naa li ko dal yëkkati 60 millions jox ko kooku ba tey société mbokk na ci société yi gën a dox ci Sénégal mu ngi dund moom ni ma xamee Baye Mar Faye laa ko xamee waaye comme nettaliwuma bosam te waxuma ma nettali ko moo tax duma ko nettali waaye xam naa ko loolu yépp dama koy dugal ci cadre maandu ak bañ a wax yëfu jàmbur waaw kii mën na social wala mënut social wala mën na social wala mënut social nii mu koy defalee jàmbur yi la koy defalee doom yim jur daanaka salaire la leen dogaloon kenn ku nekk ak lam warloog yow te bu ko sa moroom yëg dimbale leen ci wàllu yàlla ku nekk gis na responsable moral ku gis ku nekk gis na sëriñ Mansour ku nekk gis na Serigne Habib doomu ku nekk gis na Maam Maodo ku nekk ku nekk ku nekk di nga gis benn doomu Serigne Cheikh buy taxawaalu ci mbedd gisagum ngeen ko gis ngeen benn doomu Serigne Cheikh bu la jël daara daayira yi gis ngeen ko gis ngeen benn doomu sëriñ Cheikh bu lëjën nit ñi ci laajum àddiya gis ngeen ko du sëñ du ki tuddee sëñ Abdoul Amin te joboot na waaye doo gis benn doomam ci mbedd muy traîner doo gis benn doomam buy xëccooy daayira ndax teel na leen xamal ne mbir mi newul ci xëccooy daayira terewul nag ñépp baax ne waaye moom voie bii la jaarale waa këram xoolal taawam bi sëriñ Mansour ki mu tuddee borom daara ji 2003 ba tey mu nga ne meng France te dem France taxul nga gis ko dem France taxul nga gis ko ba mu fa demee ba tey ñi ko gis mën nga ko compter ci sa baaraam yi 2003 ba léegi ñaata at la man de li ma koy jege jege mu nekk sama xarit nekk sama nijaay sama gàmmu gii balaa muy nekk gàmmu 99. moo fi mujj def waxtaan moom Serigne Mansour 2001 2 3 la dem ba mu demee ba tey tànkam dëggaatu fi te dem France taxul nga gis ko te koo koy taawam waa kii nag ki fi nekk moom Serigne Moustapha responsable moral xool xool ko moom doxinam am lépp tabaarakallaahu man lëpp xam lépp te doo ko gis fenn dëgg la wala du dëgg bu xewlee yi da ngay jékki-jékki rek mel ni ay malaaka yu tuuru doo dégg communiqué ci rajo doo dégg communiqué ci télévision te fuñ ne Serigne Moustapha fay dem nga da jékki-jékki rek gis ni mu mel ni ay malaaka yuy wàcc lañ doo xam fu ñuy jóge ah loolu ku mën defal ah sama classe gi de bu ñuy gàmmu daañ ko publicité publicité publicité ba noppi nit ñi faq maa la ko wax rajo boo ubbi kañ Pape Modou ma le lay woo naan ko demal ma wal fa jiri demal ma Sud FM demal ma eh, ni ñu koy waxeeti RFM demal ma bële ci Ahmad Aydara Zik FM fu ne da nga fa dóor benn wala ñaar wala ñett pour gars yi yëg ko responsable moral la ngi ni doo digg te am na télévision Mourchid TV ku ko moom mas ngeen digg communiqué Serigne Moustapha jaar Mourchid TV wa taiyahum uznun waa'iya fa la ko yàlla dugal